أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يونغي أنداك تاجين كتاب التوحيد tey di ñaareelu dars ci baabu ma jaa an baadi anna baada hazihi l umma yacbudu l awsaan yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo nu doon jàngal di nu xamal lenn ci xeet wi dunu dem àllaaxira mukk lu dul dana nekk ay bokkaalekat ay jaamukati xërëm jëloon nañ aaya bi njëkk ci bunt bi tey nekk ñaareelu aaya sunu borom subhanahu wa taala wax ci suratul maida aaya 60 mu ne qul hal unabbi'ukum bi charrin min zalika mathuba مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل برم سبحانه وتعالى di wax ak sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ko qul yaa muhammad maa ngi lay wax yow muhammad na nga wax ne hal uxbirukum bi charri jazaain ind allahi yowma alqiyaama kaay leen ma wax leen ma xabaar leen ma nettali leen ñi nga xam ne ki nga xam ne moo gën a bon fay ca yàlla yowmal qiyaamati ñëw leen ma xabaar leen ma jàngal leen xamal leen bu ñu demee yowmal qiyaama ana ñan ñoo fay gën a fekk fay bu bon ki fekk yowmal qiyaamati safara kenn gën laa fekk fay bu bon amul kenn ku la gën a fekk fay bu bon yowmal qiyaamati bu fekkee nit ki dafa dekki yàlla subhanahu wa taala daal di koy tàbbal safara mu ne mimma tazunnunahu bina li ngeen di njort ci ñun di ñu ko askane la ñun jullit ñi te loolu wahum antum ayyuhal muttasifuna bi hadihi sifaat mu ne te yéen ñi nga xam ne yéen a mel melokaan yii man laanahu llah koo xam ne yàlla dakaa rëbb saa yoo jàngee ci alquran wala hadis ñu ne laana allah mooy ku yàlla soril yërmandeem mooy abadahu min rahmati koo xam ne yàlla dakaa soril yërmande ku sàlla ku yàlla subhanahu wa taala soril yërmande nag yow ku la gis sax dafa la war a daw kenn waratul toog ak yow kenn waratul wax ak yow ndax ku yàlla sori yërmande sa àtte ëllëg mooy safara rek nga jëm ndax yërmande yàlla moo la mënoon musal nga dugal aljanna léegi yàlla soril na la yërmandeem kon ci lan nga tàbbi mooy ci alkandeem ñii melokaan yi ñu mel dafa baaxul bokk na ci melokaan yu njëkk yu ñu am mooy laanahullah yàlla da leen a rëbb yàlla yemul ci loolu de waaye wa ghadiba alayhi yàlla mere leen ñaar yi benn rek doon na doy ñaar yi benn bi sax ëpp na maanaam yàlla sori la yërmandeem ëpp na bu ci tegee sori la yërmandeem mere la nag waaw moo gën a yësati te meru yàlla subhanahu wa taala xejul ci doomu aadama ay xadban laa yarda baadahu abad yàlla mere na leen mer goo xam ne dootul kontaan ci ñoom ba abad wa jaala minhumul qiradata wal xanazir ñetteelu melokaan bi mooy ginnaaw ba leen yàlla sori leen yërmande ginnaaw ba leen yàlla meree yàlla def na leen ay golo yàlla def na leen ay mbaam xuux loolu moo tax meru yàlla subhanahu wa taala xejul ci nit waaye ñàkk laa yërëm tamit xejul ci yow xoolal ñi ba leen yërmande yàlla soree ba meru yàlla wàccee seen kaw lan la leen yàlla mujjee soppi mooy wa jaala minhum alqirada yàlla def leen ay golo wal xanaazir ak ay mbaam xuux wa qaala sawriyu an alqama an mugira ibnu abdullahi ñoo ñëpp bu ñu àndee ñu jële ci maarur ibnu suwayd mu ne anna ibnu mas'ud su'ila dañoo laaj sahaaba bu màgg boobu tudd ibnu mas'ud mu ne su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne laaj nañ yonent anil qirada ndax golo yii wal xanaasir ak mbaam xuux yi yàlla di wax ci alquran ay mimma masaxallah ndax golo yi ñu gis tey ci àll yi ñu yéeg ci garab yeeg daw di waddi waddi ak mbaam xuux yi ñuy gis ci àll yi mu ne ndax nit ñoo ñu rëbboon nit ñoo ñu yàlla merewoon ndax ñoom la fa qaala inna allaha lam yuhlik qawman lam yamsax qawman fa yajcal lahum nasalan wala aqiba wa innama alqiradata walxanazir kanat qabla zalika rawahu muslim ibnu mas'ud nee nañ laaj nañ yonent bi golo yi ak mbaam xuux yi ndax mooy ñi yàlla rëbboon démb mere leen mu ne leen déedéet ndax yàlla saa yu alagee xeet saa yu leen rëbbee soppi leen ay golo wala ay mbaam xuux yàlla day dagg seen geño maanaam loolu ñooñu dootu ñu jur yàlla day dagg seen geño ñooñu lenn dootul jokk ci ñoom mu ne golo yi ngeen di gis mbaam xuux yi ngeen di gis dafa amoon avant yàlla di alag ñii kon bu ñu jàpp mukk ne golo yi ñuy gis wala mbaam xuux yi wala wala wala ay nit yu yàlla alagoon démb la déedéet bal golo ak yeneen yi mel ni moom dafa amoon balaa yàlla di alag yenn xeet yi di leen def ay mbaam xuux wala mu def leen ay golo ixwatal iman qala alimamu albagawi fi tafsirihi qul ya muhammad hal unabbiukum ay axbaru axbirukum alimamu bagawi bi muy firi aaya bi ci tafsiram dafa ne yàlla subhanahu wa taala moo wax ak yonent yàlla muhammad ne ko kaay ma xabaar la bi sarrin min zalika yaani qawluhum lam nara ahla ddin aqallu xazzan fi ddunia wal axira minkum wala diinina charran min diinikum fa zakara aljawab bi lafzi libtidaai ka qawlihi qul hal unabikum بسر من ذلك النار الإمام القرطبي يال نكو يالا يرم بغوي نينا ci tafsir bi yàlla di firi aay bi yontu yàlla muhammad di ko jàngal xeet wi mu ne ñëw leen ma xabaar leen mu ne mooy ñoom seen wax ji ñu wax ne ñun de musuñoo gis diine joo xam ne yàlla cërale na ko ci àdduna ak àllaaxira cër bu rëy bu mel ne seen diine ji wala diinan charran min diinikum gis ñu diine ju gën a bon seen diine ji yéen seen diine ji amul diine ju ko gën a bon moo gën a bon ci diine yi alxuraan wàcc di leen wax qul afa unabbiukum bi sarin min zalik kaay leen ma wax leen yéen da ngeen di lii bon kaay leen ma wax leen lu ko gën a bon loolu lan la yàlla mu ne annaar ay nit yoo xam ne dañ leen di yóbbu safara waaye yàlla rëbb na leen man laanahu llah yàlla rëbb na leen wa ghadiba alayhi wa jaala minhum alqiradata walxanasir loolu kay moo gën a bon kan kon ñee lan moo tax ñàkk jaamu yàlla moo tax yàlla wàcc soril leen yërmande moo tax yàlla mere leen moo tax yàlla def leen ay golo ak ay mbaam xuux mbokk jullit yi mu ne wa qawluhu masuba wax ji aaya bi wax ne sunu borom subhanahu wa taala di leen fay mu ne mooy sawaban wa jaza yàlla dina leen fay defal leen yiw su ngeen ko toppee mu ne wax ji yàlla wax ne inda allahi man laanahu llahu wa gadiba alayhi wa jaala minhum alqiradata walxanazir mu ne fal qird ashaabu sabt walxanazir kuffaaru maidatu isa xam ngeen ne banu israil am na ci xeet woo xam ne ci ñoom yàlla daf leen a soppi daf leen ay golo lan moo waraloon loolu bolom bi da leen a tere woon nappi samedi ne leen samedi day bu leen jege géej gi bu leen nappi bu leen jege dex gi moo xam dex la moo xam géej parce que ñaar yooyu yëpp day am jën waaye yàlla tere na leen napp samedi sunu borom subhanahu wa taala mbiram yëpp dafa am ay xikma dafa am lu ci nekk yàlla nattu na leen pour tester leen xool seen ngëm fu mu toll ma yàlla ne leen mbir mii ñu ne ma mun a bàyyi leen ko yàlla saa yu la teree dara day xool foo toll da lay natt ndax di nga bàyyi ndax di nga def ba leen yàlla teree loolu ñoom ñu seetlu ne bu samedi jotee jën yi day génn ba ci tefes di leen ñaawal bés bu dul samedi jën du am bu samedi jotee rek jën yi dañuy tegaloo ba génn ci tefes gi di jël tàngaay di bronze wu seytaane roofu leen ne leen xam ngeen yàlla daneen tere nappi samedi waaye da ngeen di ñëw ngeen tëral benn plan benn pexe ñu ne lan la ñu ne da ngeen di wut mbaal yu gudd bu samedi jotee rek ngeen dugg ci géej gi wër jën yi comme jën yi dañuy génn ba ci tefes gi ngeen wër leen da ngeen dem 2 kilomètres ci géej gi ngeen wëral mbaal mi waaw bu leen jàpp nag da ngeen di wëral rek samp bant yi ba mu dëgër ngeen ñibbi si toog bu samedi ci ngoon jotee di jën yi ñibbi rek mbaal yi jàpp leen su ko defee dimanche ngeen ñëw jël seen jën yóbbu seen kër su yàlla waxee ngeen ne ko gis nga samedi nga ñu tere dimanche lañu indi jën yi ah ñu xaaju ñetti kuréel dëkk ba xaaju ñetti nit ñetti groupe ñenn ñi ñun ñun xoolal ñun duñu wax ak yéen sax yéen da ngeen dem jàppi jën ñun suñu yoon nekk ci ñun duñu wax ak yéen ñeneen ñi ne déedéet bu leen dem ragal leen yàlla yàlla da leen a tere beneen kuréel bi ñun ñun dañuy dem ñun suñu yoon nekku ci sama fu bu ngeen ñu waareek bu ngeen ñu faalewul ak ñun dañuy dem suñu yoon nekku ci ah samedi jot jën yi ñëw ñu jël mbaal yi wërale ko géej gi yëpp samp bant yi dem ñibbi seen kër ba ñu ñibbisee am na kuréel boo xam ne ci ñetti kuréel yi xam nga dafa am ñoo xam ne ñoom dañu ne seen yoon nekku ci am ñoo xam dañ doon waar ñi bëgg a dem am ñoo xam dañoo dem ñi nga xam ne dañoo demoon biñ ñibbisee ñi leen doon waar ñëw di leen waar ñu noppi woon daal di ñëw ci ñi waaraate ne leen yéen lima tu'izuna qawman allahu muhlikuhum lu tax ngeen di waar ñi nga xam ne yàlla da leen di alak bàyyi leen ñii bu leen wax ak ñoom ñu ne maaziratan ila allah dañuy wax ak ñoom ndax dégager sunu responsabilité ndax boo dëkkee ci kër wala nga dëkk ci dëkk nit ñi def lu bon nga bañ cee wax su mbugal mi wàccee njëkke la dal sa kaw beneen bi mooy ñun dañoo bëgg yàlla xam ne kat ñun noppiwuñu ci lu gis biñ gisee lu bon maaziratan ila allah ngant la ñuy jël ci yàlla pour ëllëg bu yàlla di alak nii dimanche jot gaa yi dem ci géej gi jëli jën yi ba ñu yeggee ñoom ñëpp yàlla nee na waqul naa lahum kunu qiradatan xaasiin yéen ñëpp nekk leen ay golo ñoom ñëpp ñu nekk ay golo kenn dellusiwul nekk nit ñoom ñëpp noonu la leen yàlla alagee kenn ci ñoom ñibbisiwul ñoom ñëpp dañoo mujj nekk ay golo moo tax borom téere bi ne ñooñu yàlla rëbb mere leen wa jaala minhum alqiradata walxanazir nee na falqirada ashaabu sabt mu ne ñu yàlla def ay golo mooy ña rëbbi woon samedi ña nappi woon samedi walxanazir mu ne ñu yàlla def ay mbaam xuux nag mooy ku faaru maayidata isa mooy ñi nga xam ne ñoom it dañoo ñëwoon ci yonent yàlla isa alayhi salaam ñu ne ko boo ñaanee yàlla benn taabal benn bool bu mag jóge kaw asmaan am lekk ñu lekk danañ la gëm mu ne ah mbaa duma ñaan yàlla taabal ji wàcc wala bool bi wàcc moom ngeen dégg ñu ne suuratu suuratu sama sama cadeau yi dama ko fàtte sama butel parfum yi suuratu maida mu ne dinaa ñaan yàlla mu wàcc mbaa bu wàccee du ngeen wedd ñu ne ko déedéet mu daal di ñaan yàlla yàlla wàcce ndab li ñu lekk ba suuf daan ne ko yaa mën a njabar yàlla def leen ay mbaam xuux kon ñi yàlla def ay golo mooy ñi nappi woon samedi ñi yàlla def ay golo mooy ñan ñi weddi woon boolu isa ba alayhi salaam wa an ali ibnu abi talha an ibnu abbas an almasxayni kilahuma min ashaabi sabt suñ jëlee ci ali doomu abi talha mu jële ci ibnu abbas firikatu alquran bu mag bi nee na ñaari masax yooyu ñaari masaa yooyu ñaara soppi yooyu yàlla soppi ñii ay mbaam xuux ñii ay golo nee na ñoo ñëpp mooy ña nëppi woon samedi nee na ñu nëppi woon samedi yàlla deux groupes la leen def ñii mu def leen ay mbaam xuux ñii mu def leen ay golo yenn borom xam-xam yi ne góor ña la yàlla def ay golo jigéen ñi mu def leen ay mbaam xuux waaye moom li wër daal mooy ay golo ak ay mbaam xuux la leen yàlla def mu ne fa sababuhum masxaw qirada mu ne sabab bi nga xam ne moo tax ñu def leen ay golo ak ñu def leen ay mbaam xuux ak abada taaxuut jaamu xaltu xërëm ay wa jaala minhum man abada taaxut ay asheytaan nee na yàlla yemul rek def leen ci ay mbaam xuux yemul ci def leen ay golo waaye yàlla def leen def ay jaamukatu xërëm jaamukatu seytaane fii ma sawwala lahum lahu lu tax ndax ñoom dañoo toogoon di topp yàlla ana kan moo ñëw taaralal leen ne leen dem leen ngeen nappi samedi kan la seytaane moo ñëw indi leen pexe eh gis nga xam nga sàngara yàlla dane araam na gaay bi ñu bëggee ñun jullit ñu naan ko nuñ def dañ ko def ci ay butéel yu rafet def ko ci ay kees yu rafet wutal ko verre yu rafet est-ce que xam ngeen verre yi ñu naane sàngara moo daax ñuy naane boisson utal ko zaaru glace sax yi ñu koy yu muy ànd ak kuddu xaw ma paaka yu ñuy xaw ma bant bu ñuy keppee glace nga xam ne ki koy def loxoom du ko laal même kiy servir sàngara si am na nu muy téye butéel bi genn zaar yi ba pare ñu tuddee sàngara bi ay tur yu rafet wala waaw seeral ko nga xam ne yenn saa yi mënoo jënd butéel bi da ngay ñëw ne jaay ma ci nattal ma nattal ma une verre la waa ji daal di képp ay quelques glaces tëmbal daal lay nattal daal lay facturer gis nga dañoo ñëw ne laaj benn sëriñ bu mag ñu ne ko yàlla de daane woon bu naan sàngara léegi nag gars yi changé nañ tur bi am na fu mu tudd champagne am na fu mu tudd Reclès am na fu mu tudd beer la gazelle am na fu mu tudd am na fu mu tudd am na fu mu tudd mu ne leen hee bu leen guddal innama alxamru asnaafun ma bayna Reclès wa champagne wa beer kulluha haram waaw mu ne bu leen guddal mu ne sàngara ay façon rek la daa am bu ñuy pikiiru am bu ñuy fóon am bu ñuy tox am bu ñuy naan am bu ñuy log nee na yooyu yëpp sàngara la yëpp nag dafa xaraam lépp loo xam ne boo ko naanee sa xeer muuru dafa xaraam waaye seytaane moo tàmm yor ay melokaanam su yàlla araamalee dara ci jaam yi seytaane day ñëw jaari beneen pexe ba jaam yi di ko def te jàpp ne du lii mun ngeen cee wax yu bari fu ngeen toog yu bari yoo xam ne lislaam da ko araamal waaye seytaane ñëw na taaral ko defar ko ba mu rafet ba njillit yépp di ko def jàpp ne baax na mun ngeen cee indi ay misaal wala ku ma ci jox ay misaal gis nga yàmba gis nga mèche gis ngeen riba riba ah xoolal col gi xoolal carte xoolal yooyu dafa araam xoolal riba dafa araam ñu indil la banque ñu indil la loterie indil la waaw xoolal xeesal xoolal mèche taaralal la ko defal la ko ci ay paquet ah te yëpp dafa araam mais seytaane mooy ñëw xoolal jigéen def boppu neen yaramu neen xool ni ko islaam araamale mais tey ñun ñi ñëpp dañuy xëy suba ba ngoon suñu yoon du ci nekk wala garaaw yenn saa yi sax nga taxaw koo xamante ne sa bët yëpp a ngi ci weenam yi ak yaramam nga wax ba suur mu dem yoonam doo ko wax dara yenn saa yi mu dugg sa kër yenn saa yi ñu yónni ko ci yow yenn saa yi yenn saa yi amoo ci benn mer looy mer te xoolal nu mu araamee yenn saa yi mu nekk sax sa doom bu jigéen wala mu nekk sa soxna mooy def mooy def lu araam ba pare ñëw ne la nijaay noo gisee sama létt yi tey yëngal yëngal nga ni macha allah est-ce que waaye si la tëdd fekk te xam nga ne li mu def daa araam waaw waaw noonu seytaane moo koy def. tàmm yow góor tàmm nga ko def boo ko gisee sax du la def. dootu la déranger. sa njaboot. waaw seytaane mooy fekk yàlla tere dara mu ñëw ci nit ñi fexe ba ah ah nga jàpp ne yow sàngara si nga xam ne dafa araam mooy bee wala li nga xam ne dafa araam mooy li xoolal yàlla dafa tere rek ne bu leen def eh ñu ne ah mu ne bu leen noppi samedi waaye xoolal seytaane bi ñëw lu mu wax déedéet yow yàlla dene bu leen nappi samedi waaye xam nga nu ngeen di def da ngeen di dem samedi wëral mbaal yi kar affaire bi ah ngeen ñibbi ngeen dem toog seen kër xam nga loolu du napp waaw li ngeen guddi maase da ngeen di fekk mbaal yi jàpp jën yëpp ngeen jël jën yi ñibbi bu yàlla waxee ngeen na ko xoolal xam nga loo ñu waxoon samedi nga ñu waxoon tey dimanche la mais xam ngeen ne sa jën yi kañ lañ leen jàpp. samedi lañ leen jàpp. du dimanche. du tax bàyyi wuñ bàyyi bàyyiwuñ ba dimanche ñu def loolu waaye seytaan mooy def loolu waaw yàlla dina la defal li seytaane ñëw ne la bul def loolu defal lële mbokk yi yàlla mer bi mu leen mere mu def mu def leen ay mbaam xuux mu def leen ay ay golo waaye mu def leen abada taaxuut ay jaamukati xërëm jaamukati seytaane wa qara ibnu mas'ud abada taaxuut mu ne sëriñ bu tudd ibnu mas'ud moom ba muy jàng aaya bi ni mu ko jàngee mooy wa abadu attaaxut wa qaraa hamza wa ub wa ubidi taaxut gis ngeen man ay ñaari njàngin la ci qur'an am na ñoo xam ne bu ñuy jàng aaya bi dañ naan wa abadu taaxut am na ñoo xam ne bu ñu koy jàng lu ñuy wax وعبد الطاغوت بدم الباء وجر التاء من سن برام سبحانه وتعالى من jaamukatu xërëm mooy koo xam ne li ko yàlla sant daf ka lànk waaye bu ko nit wala keneen wala leneen sante mu def kooku jaamukatu xërëm la ndax képp koy topp na fekk mu topp santaane yàlla su nit wàccee topp santaane yàlla nit kooku kenn waratu koo topp moo tax sunu borom ne seeni jëf yóbbu na leen ba yàlla wax tere leen seytaane ñëw taaral leen ñoom ñu daal def li nga xam ne moom la leen seytaane sant kon bu leen fàtte mawdu dars bi mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne xeet wi duñu deñ lenn ci ñoom danañ dem ba jaamu xërëm jaamu xërëm mooy lan mooy yàlla santaane nit santaane wala leneen santaane ñu bàyyi li yàlla santaane ñu def li kooku santaane wala loolu li mu santaane loolu mooy jaamu xërëm tey nag nañ xool ndax xeet wi ndax sunu réew mi toll nañ ci loolu wala tolluñu ci وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه وجعل الظلمات والنور moom sunu borom subhanahu wa taala moo defar lëndëm defar leer lëndëm di seytaane képp ku ci aju leer di lislaam ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak lépp lu ci aju léegi nag ab jullit war a xàmmee ñaar yooyu lëndëm ak leer azulumaat wa nuur gis nga lëndëm gi bi ko yàlla di wax waxul azulmu lan la wax azulumaat benn la wala ñaar la yu bari la lu waral mu nekk lu bari mooy lu dul yàlla rek lëndëm la loolu islam rek lëndëm la ak noo ko jàppee ak loo ko foog lëndëm la lu tax mu nekk lëndëm ndax njubal yàlla moo ci dul nekk njubalul yàlla moo ci dul nekk lu njubul yàlla nekkul nag loolu lëndëm la mënul leer mukk ndax lan soo ci nekkee it doo baax xoolal tey daa jox benn misaal bu ndaw politiciens yi nit ñi da leen di gis di leen ñee ndax lan ndax lan ndax xaalis bi ndax matériel bi mais liñ nekk baaxul parce que buñ ci dee dañuy dem safara wala mais ñi leen gis ñi leen gis dañ leen di mbëri mbëri ñu mbëri dañ leen a ñee tey am na ci ñun fii dañoo bëgg nañ am doomu mbër comme ñoom mënatuñoo nekk mbër waaye li ñu nekk baaxul parce que buñ ci dee dañuy dem safara lë lëndëm la leer nekku ci musiciens yi kazalik xoolal ñi musique xoolal fecckat yi xoolal football bi xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal loolu yëpp boo ko boolee lëndëm la parce que amul leer amul lenn lu lay yóbbu ci lislaam amul lenn lu lay yóbbu mës ngeen gis ko football ba yegg ci yàlla ah ku bëre ba yegg ci yàlla nag ku fecc ba yegg ci yàlla nag am na maanaam loolu yëpp lëndëm la moo tax yàlla bu muy wax zulumaat mais gis nga bi muy wax leer benn la wax wa nuur benn kese la mooy lislaam xoolal moom lislaam lu lay wan ne leer la mooy lépp loo xam ne day yàq nit day yàq xel day yàq dëkkuwaay day yàq mbooloo mi day yàq dëkk bi day yàq dundin wi lislaam daf laa tere lool xalaat leen lépp lu lislaam tere ndax am na ci lu baax yéen ñi nekk ci yàq ji toog kenn ci yéen na posé benn question mu ne nangam bi de islam da koo tere mais gis naa ne dafa baax wax leen may naa leen cinq minutes ngeen wax benn mbir bii de l'islam da kaa tere nit ñi waaye daa baax de amul l'islam lu mu tere rek baaxul ma jox leen misaal benn waaye daa ñëw ci yonent bi ne ko damaa bëgg nga bàyyi ma ma am ay gel ñi am gel luñ koy doyee ma wax leen ma ma wax ko ma wax ko xaaral ma wax ko baatu kaw kaw bi danga ma bëgg nga bàyyi ma am ay coro ñi am ay coro lu ñu leen koy doyee njaaloo rek wala xoolal yonent bi ni mu tool nit ñëw wax ko loolu ku demoon tey ba ci xalifa général yi nga wax leen loolu lu ñu lay def ñi fa toog lu ñu lay def léegi duma dañu kii moo xamadi ki duma leen ko waay gars yi saax saaxee la yonent bi bi mu waxee bi waa ji waxee loolu gars yi bu ko dóor ba dina bàyyi leen jàmbur ñu bàyyi waa ji waa ji toog loo wax mu jaaraat ci mu ne ndax bëgg nga ko def sa yaay mu ne ko subhanallah yonent yow tamit ndax bëgg nga ko def sa doom mu ne déedéet ndax bëgg nga ko def sa jigéen mu ne déedéet mu ne ko ñi nga ko bëgg a def ay yaayi jàmbur lañ ak ay doomi jàmbur ak ay jigéeni jàmbur wala wala gis nga ñiy def lu bon yëpp ci àddina bi kenn bëggul njabootam def ko ñi organiser combat yi kan la ci doomam di bëre wax leen ma ko gaaw leen gaaw leen affaire baa ngi guddee wax leen ma ko ah amul lu tax xanaa daal million la ñuy fay seen doom yi bëgguñu millions yi mais baaxul woykat yi kenn ci ñoom bëggul doomam woy doo gis sax seen doom yi seen soirée yi ñu ci ëpp boobu parce que xam nañ li nekk baaxul waaw ndeysaan da ngay dëkk ak jigéen juy jaay boppam da lay indil doomam ne la diw wala mu ne la sëriñ wala mu ne la ustaas nga ne mu ne sama doom ji jàngal ma ko damay bañ li ma dal dal ko bëggul doomam nekk lu bon daf lu bon léegi nag moo tax lépp lu lislaam tere rek baaxul ndax lislaam mooy leer bal sax boo nekkee nitu lislaam da ngay am leer da ngay wuuteeg sax koo xam ne du nitu lislaam jaamukatu yàlla soo ko gisee nga gis ku dul jaamu yàlla ñoom ñaar dañoo am différence ah ah mooy azulumaat bi wan nuur bi duñ sax benn duñ sax benn bokkuñu sax bi jaaw kawar bokkuñu ko loolu mooy yàlla moo ko def loolu moo tax nit ñi war a xam ne lislaam mooy dëgg xoole lu mu tere rek baaxul l'islam bu teree njaaloo avant tout kan lay sàmm yow lay aar bu teree fen avant tout kan lay sàmm yow xoolal xoolal bu ñu la fenalee tey bañ bind ko ci journaux yi soo génnee lu nit ñi wax ak kii la dootoo jar dara xoolal l'islam mu ne fen dafa xaram bu kenn yàq deru nit bu kenn sàcc xoola sàcc bal sax da cee teg ay loi ne ku sàcc nañ ko def nangam ku njaaloo nañ ko def nangam xoolal sàngara mu ne ku ko naan nañ la def nangam mu naan lislaam li mu araam yëpp dara baaxu ci ndeysaan loolu rek moo ñu wane lislaam mooy dëgg waaye nit ñi xamuñu ko parce que buñ ko xamoon duñ fekk yàlla tere dara ñu ciy dem mais xoolal li yàlla tere tey lépp la ñuy def xoolal ger ger ni mu yàqe monde bi ni mu yàqe société yi xoolal ger ni mu yàqe Sénégal ñépp la ñu ger Sénégal tout le monde xool ni mu bone xool li muy def ah xoola ñàkk kóolute nga dem ba wóoluwoo sa jabar jabar ji dem ba wóoluwul jëkkëram doom yi wóoluwuñ seen papa papa ji wóoluwul doom yi fuñ jëm kon lislaam mbokk yi mooy dëgg ndax moom mooy leer gi ñu sunu boroom subhanahu wa taala defaral kon yellu na jaadu na ñu xam loolu bu baax a baax a baax waaye duñ yem xam ci rek ñu xam ne xéewal la te borom bi subhanahu wa taala nee na wa in tahuddu nicmatallahi la tuxsuha su ngeen doon lim xéewal yi leen yàlla subhanahu wa taala defal du ngeen ko mën a takk xéewal gi ci gën a rëy gu ñu yàlla defal mooy yàlla def ñu ay jullit yàlla boolewuñu ci ñooñu mu mere yàlla boole wuñ ci ñooñu mu soppi def leen ay mbaam xuux yàlla boole wuñ ci ñooñu nga xam ne daf leen def ay golo yàlla boole wuñ ci ñooñu nga xam ne daf leen rëbb soril leen yërmande bal ñun yàlla def nañu ay jullit boole ñuy ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xayra umma xeet wi gën ci xeet wi loolu kenn ci ñun mënu ko sant yàlla subhanahu wa taala kenn mënu ko fay xéewal gën te rëy loolu bokk na ci xéewal yi ñu yàlla defal mooy mu def ñu ay nit ñu koy tooñ guddeeg bëccëg te defuñ dara ñee démb dañ koo tooñ rek lu mu leen def mu sori leen yërmande ndax loo rek la mu mere leen ndax loo rek la mu def leen ay golo ndax loo rek la mu def leen ay mbaam xuux tey loolu ñooñu defoon ñun ñun def nañ lu ko raw ah waaw ah li xeet yooyu defoon démb yàlla rëbb leen alag leen sori leen yërmande ñun waa Sénégal def nañ lépp tey lépp waaw ba pare di sibile ci digg géew gi naan bu amee leneen lu des ñu def waaw loolu la de ndeysaan nan yàlla yërëm nan yàlla jàppale lii mooy darsu tey insha allah ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.